asalaamaaleykum mbokki àdduna mbokki Sénégal gannaaw ba nu sante yàlla julli ci sangu sangi Seydina Muhammad salaa salaam ñuy gërëm suñu ñaari wayjur di aman mbégte ak contentement di ñëw fii ci bi fekk si fi koo xam ne nag kenn dootu ko présenté parce que dafa marqué empreinte am boo xamee Eumeu Sène rek boo gesoo si ndeyjooram wala càmmoñ ngi fa gis jëmm ji ñu toogal lañaan nag la yuuyoo tungu ni du teew ñu ne tal grand liñaan maa ngi lay ziar. taaliba Cheikh maa ngi lay fay. di rafetlu émission bi. ndeysaan. nga xam ni man nag yow ñu ngi ko war a def fii ci Gambia. ndeysaan grand mu mel ni que démb dañu wàcc fi nga xam mooy embarcadère. lu jiitu loolu sax Kaolack. Hmm. la nu njëkk dale suñu kaw ñu ñëw Sokone. Hmm. mu metti lool. Hmm. mais bi ñu ñëwee ba ci embarcadère ci féeri bi. ñu gis benn masse boo xam benn foule. bu triomphal mën naa ko tudde noonu. lan nga yëg bi nga accès. waaw li ma yëg mooy kontantement rek comme ni nga ko sentiree. parce que yow bi ñuy yegg si si embarcadère bi féeri bi yaa ngi ci oto bi. billaahi mais bi ngay tayoo ko. billaahi gis nga ful boo. <laughs> xam ne pecc kenn mënut a muñ ndënd. merci parce que Eumeu mooy koo xam ne saa yu ñëwee vraiment dina drainer ful boo xam ni euh, doo xam ful bi fu muy jógee. ndeysaan su amee bànneex sax lay ful bi gën a néew ko bu amee naqar. Mhm. bu amee naqar bi day gën a yokk. day gën a yokk. pour ñu feddali seen kóllëre woon ko ni ko ñun chaque jour ñu ngi sa ginnaaw. Mhm. keroog nga amee ndam keroog nga amee safaan ba yàlla suñu borom moo ñu boole. ñu mhm. nekk ay frère mhm. gàmmi nekk suñu kër. Mhm. ñu yàgg fi ñëw. am fi ay xarit am fi teraanga. waaw parce que teraanga mënul weesu. nga bëre. président de la république. recevoir la. recevoir la. yow sa écrit plus de quarante et quelques personnes jox leen hôtel. dalal leen presque quatre jours. teeru leen teral leen dafa leen teraanga président Yaya Jammeh ñu ngi nuyu. di ko ñaanal jàmm moog njabootam. ci fi nekk di Adama Baro aussi ñu ngi koy ñaanal yéen bi oyof ci kawam. Mhm. moom it ku neex deret. Mhm. ku baax. Mhm. ku jàppale Gambien yi. jàppale Sénégal yi parce que xam nañu Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. te mu ngi siy doxalu loom di yi aussi. parce que boo nee Macky ne Adama Baro. boo nee Adama Baro ni président Macky Sall. ñu ngi leen di gërëm te di leen sant. di rafetlu nag teeru bi teeru bi nag moom rafet na. Kaolack aussi. ñëpp xam nañ ne Eumeu Sène loolu la fa am. keroog bi ñu demee drapeau chef de mujj affaire bi parce que ñëpp xam nañ ni moom dafa bëgg Baye Niass. bëgg Baye Niass. taalibe Cheikh la te da mm-hmm. koy dund. Mm-hmm. Mm-hmm. bon te ñooñu kaw la ku ko wax wax Baye Niass. moo tax saa yu fu ñëwee rek dañuy wane cofeelam ci moom. yow mi ànd moom wala yow mi fekk si lépp da ngay sentir loolu. waaw vraiment noonu rek la mën a demee quoi. dëgg la parce que gëm naa ko ndax fi mu toll nii daa daanaka ñu ñëpp ay roi la ah, à Eumeu Sène. mu mel ni que da tudd ku baax ñu koy wax le président Yaya Jammeh. ma fore woon ci rajo kankan yi. Mhm. wala ci wewu bëy mhm. ñu ne doonoon ñaanal Eumeu Sène. Mhm. combat bi ngeen tabbi si Gàmbi fekkul leen fi Yaya Jammeh. lan la leen di fàttali wala lan la leen def ci yéen. waaw xam nga nag euh, li may faral di wax rek nit sori na la fekk jigéen la. me nit jigéen na la aussi fekk sori na la. président kooku suñu jaay la. président Yaya Jammeh. yàlla dafa dogal ne bi muy xamante ne Eumeu Sène maa ngi moom a ànd. Mhm. maa ngi Eumeu Sène ñoo ànd. Mhm. dégg naa sax bu ma saan woo Eumeu Sène jotu ko yow lay woo. man lay woo man maa koy passé Eumeu Sène. <laughs> waaw su ma ne bu ne ma allo ma ne ko allo mu ne ma kookal la man ko man la lañ jàng mu ne ma hey jox ma sama jarbaar lay wax man la lañ <laughs> suma jarbaar laa soxla soxla soxla ma la ñaan. waaw nekk ku neex dara na ku baax. parce que loolu laa xam ci moom. aussi te loolu laa koy mën a seedeel aussi. Mhm. waaw bon lim ñuy def defuñu daanaka lu bari. ak butéel bi mu manqué war a manqué ni. non butéel bi day ñëw fu muy jógee Guinée. waaw mais loolu kot. <laughs> mais loolu dina garaaw de. non suñu butéel ak président Yaya Jammeh kot lañ ciy def. Ah. fu ñuy toog la ñuy toog wax ko. mais doo ko leer def ñun ba jot suñu butéel xam na. doo ko leeral fii ci Gaston production. point non non moom xam na man xam naa. Hmm. waaw na ñuy def ba jot suñu butéel. Hmm. xam nañ ko ginnaaw ak tari soriwul. mais dafa mel ni yéen da ngeen a dëkk Gambie lu xew. waaw mooy comme li ma wax léegi rek dañoo dëkk Gambie. Hmm. dafa du dafa mel ni de. loolu dañ fay dëkk. parce que Eumeu Sène ay ni yaayam a ngi fi. Mhm. man ak yow ànd nañ démb jaar. benn kër yaayam waa kër yaayam. yaayam. Mhm. deretam deretam. fi ñu demoon léegi ñun ñuy ànd. Mhm. nijaayam lañ seeti woon. léegi fu ngeen demoon nii. benn nijaayam lañ seeti woon. Eumeu Sène famille bi mu bokk góor day ñaan jigéen day ñaan. loolu la ñuy yàlla jagleel. yaayam ñëpp xam na ci famille famille marabu lañ bokk waaw ñaan parce que ay nit ñu sell lan. parce que man am naa chance su kotawaayu ko. ànd ak moom Gambey ànd ak moom Casamance. ànd ak moom fépp xam ban genre nit la ak si la bokk. am na ñuy laajte ndax sababu Eumeu Sène jóge Sénégal ñëw Gàmbi dafay fekk si ay fan si clubam pour ñu saafonte wala dafa ñëw pour ñu sargal ko wala dafa ñëw pour wut si li nga xam ne mooy ay xarfa xuuf leeral la noonu la ñaan ñu xam. waaw non bu fekkoon dañ fi ñëw pour wut si ay xarfa xuufa dañu ànd ak télé yi. sargal moo ñu fi indi. Mhm. parce que suñu xarit bi ñuy wax Dembo Dieng. Mhm. nga xam ne mooy président fans club Gambie bi yëpp. Mhm. mu nekk quelqu'un boo xam ne bu day mobiliser ñëpp ay biche. Mhm. day jëlee Gambie ñëw dakaar mhm. bu ñu amee ndam. Mhm. bu fanaanee maam jour bi ñu daan. si dimanche bi. su fanaanee dimanche. altine bu xëyee bu tàggatoo day ñibbi. mais bu ñu amee safaan. dana fa toog trois jours moog fan si club bi di ko dundandoo ñun. mu nekk mu nekk ku fidèle mu nekk ku fidèle. moo tax bi yàlla dogalee tey ñu war a génn. ñu ni génn bi duñ ko jagleel fenn fu dul Gambie. am na solo. moo tax tey ñu buub suñu lépp ñëw Gambie fas yéene fay def deux jours. muy vendredi ak samedi incha allah yàlla mën naa dogal dimanche ñu ñibbi wala altine ci kàttanu yàlla. am na solo mais la ñaan yow ku garaaw nga. lu tax nga wax loolu. parce que dama digg am seen fan yee mu nekk fi naan non man bala sama mbokk la affaire de parent lien de parenté ay parent lañ nangam nag expliqué. Mhm. nga fexe yow sa wàllu bopp. Mhm. yàgg Pam Ngom. mu mhm. nga xam ay magu am seen ngeen. ngeen côtoyé Gaston ba long quartier li nga xam ne si mooy combat bi nan nga def ba ba trouver loolu. waaw non comme ni nga ko waxee léegi ñun ñëpp ay frères la na ah. du question grave ñun Eumeu Sène seere wuñu ni ma la koy waxee man Eumeu Sène li may li ma a bëgg a seere si seere si moom. Mhm. man ak ñoom Pam Ngom ñooñu nga wax. maa ngi koy mhm. nuyu. Mhm. suñu grand la. di nuyu Assou Ngom Awa Souleymane Ngom Khadim. ñi nga xam ne ñoo bokk ak Eumeu Sène ndey ak baay. ba pare libéré ak Eumeu Sène. xataluñ ma. léegi rek jot naa Awa Ngom mu woo ma depuis Allemagne. kon si ni yaay fi damoon. kon du question grave mais tey. Eumeu Sène lépp lu a def si làmb def na ko si làmb. Mhm. bu Sénégal yi fàtte loolu. man mosuma d'accord diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye. ak Balla Gaye ni meloon trois oh, ni meloon ok. déedéet ni meloon. Mhm, mhm, ni meloon. waaw mel ni mel ni Iran mel ni Iran Irak. waaw troisième combat maa njëkk a toog ni man la njëng. en tant que amateur. combat boobu daf ma neex. dana daf ma neex. gars yi ni ma nu ñuy def ba combat bi am. te Sénégal yi bëgg nañ combat bi nangam nangam da war a fexe combat bi am man leen dem leen wuti trois cent cinquante millions indil ma ñu tëgg combat bi. loolu moo sax daanaka moo lancé. Mhm. affaire bi. Eumeu mhm. Sène fa ba léegi. Mhm. mais nit ku ne da ngay am cër si say papa. si sa frère. même bu dutoon papaam jàpp naa ne bu dutoon papaam. du bi. bu nu insisté si da ngay jël Balla Gaye def ko. da koy jël parce que la dafa tax. ne da nga ba yàlla dogal bu fàttali ne Eumeu Sène lépp lu yàlla di lu yàlla teg. ci combat yàlla def ñu koy gagné si làmb Eumeu Sène gagné na ko Eumeu Sène nekk na champion d'Afrique. Mhm. médaille d'or. loolu foofu moom dañ fiy def ab taxaw ab taxaw seetlu. ndax dégg dégg naa fi fan yee ku ko doon critiqué. Mhm. naan ko baal naan ay champion d'Afrique. Eumeu naa la ko woon. Mhm. bu nekkoon Dakar moom la médaille bi. est que amu ko woon Burkina bi. Burkina Faso la <laughs> waaw Père nekk na champion d'Afrique. <laughs> Hmm? Pape Diop Basson moo wax loolu. Eumeu Sène nekk na meilleur lutteur fal nan ko ko. Mhm. Eumeu Sène euh, bëri na drapeau chef de l'État. Mhm. jël na roi des arènes. Eumeu Sène jël na roi des arènes. Mhm. man jàpp naa ne Eumeu may na bi mu jële roi des arènes ba teg ko. ay fansam. ñoo waroon def conférence. Eumeu Sène daal leen dong la defagul. mooy daan Modou Lo. waa te li si kanam est-ce que que est-ce que pare ngeen. bu ngeen jógee ci Balla Gaye jógee ci Gris Bordeaux ngeen laaj Modou Lo Modou Lo laaj seen ak ak seen yelleef balaa mu ko yóbbaale retraite. nekk. parce que ku ne woon Balla Gaye ak Eumeu Sène dinañ bëriwaat nit ñi weddi ko. Hmm. nest kon yéen pare pare ngeen pour bëree pour pare Modou Lo après. non non maa ngi ñëw nag day aju si moom hmm. parce que nag moo am ndam si ñun ñaari yoon. Hmm. bu yàlla dogalee ñu génn si lu ñu si génn incha allah ak jàmm. ñaan ko revanche may ñu revanche. wala làmb boolewaat na. dinañ bëree parce que nag bul fàtte ne ay Modou Lo Eumeu Sène Balla Gaye ñii ñooy mayante moonin. non ñooy mayante wax na ko Eumeu Sène bu ko nit ñi soppee. mu ne hmm. na Eumeu Sène ma soppee nit ñi ma soppee. yaa tax ko may c'est comme yow bu la soppee man maa tax. dëgg la parce que ñooy gañ seen muuni ñooy gañ seen seen xaalis. dëgg la ba ci succès. te hmm. hmm. ma la wax baax. seen avenir. ñu ko nan ko defar. parce que loolu lañ deseel fans yi. dama lay wax benn affaire man la sànq bi Eumeu Sène jëlee roi des arènes. fans ñoo waroon toog def conférence de presse ni ko ëm mu ah, ñu leen àngal ko ku la làmb booleel dama bëre. Mhm. même yow wax yi nga fi waxoon ci ginnaaw ak nan la ko. Mhm. baal ma sax paam ngom di si dugg ak papaam di si dugg. Mhm. paam ngom ci war a dugg. ndax ay kilifaam lañ. ay kilifaam lañ ba muy métti moom ak ñoom la. monsieur wax na ko nee na bu doon da ngom jaar si weneen yoon wi. mais danaan sol kilootam sol seulement génn di ma wëri pour di xeex man pour que ma bañ ñëpp xam nañ Pikine ni mu daan doxee Pikine nga dëkk. Pikine. boo amul sens amoo encadrement. yalla fa lañ dëkk daal oh. jeexal nay wax waaw kon tey bu yàlla dafa dogal nga am cadrement bu mel ni Pam Ngom mhm. nekk mag yoo xam dafa sawar mhm. am doole comme yow boo jalgatee mu mbëkkanteeg yow xeexee mhm. yow ba ngeen tojante dëkk la ci terrain bi sax a nekk Eumeu Sène star ba muy ba muy ba muy nekk star boobu Eumeu Sène kenn xamu ko merci kooku tey bu taxawee ni la eh fii laa bëgg nga teg fa sa tànk combat bi Pam Ngom ak ko jël sama complice nag mi ngi ci du ma ko bàyyi dëgg la du ko bañ parce que sama gëm-gëm laay wax. Mm-hmm. desoo ci ginnaaw desoo boo waxul lii rek wax la ca des. Mm-hmm. te man naa feq. Mm-hmm. parce que lii Père Gass daf koy seetaan. ñeneen ñeneen dañ koy seetaan. complice laa ci pour que Eumeu Sène jëlaat mu nekk lu am solo la ñam mu mel ne que seen combat yi ngeen daan jël en général da ngeen ko daan préparé fi nga xam ne mooy France. fore naa ci wewu nag ñu ni combat yi États-Unis ngeen jëm loo ñu mën a leeral ci loolu. <laughs> loolu gars yi ñooy gaaw rek mais kenn xamagul mën nañ ko préparer sa Gambie. Gambie waaw mën nañ ko préparer Gambie sa comme mën nañ ko préparer ji États-Unis comme ni mhm. nga ko waxee. en tout cas ñu mhm. ngi siy déglu staff bi. xel sax day fattu. maa ngi jégalu di jiital si nuyoo président Khalifa Niang. Mhm. teg si Barkala doyen. suñu doyen. ah ak ki nga xam ni mooy Ibnu Diop. Cissé Lamine Diom Cheikh Ndoye Pape Gueye Latif. ah Jigo grand pape Koumbe. Mhm. Ibou si bàyyiwuma kenn. Mhm. staffu tay ci nga bi yëpp. Mhm. maa ngi leen te di leen remercier si waxtaanee ak ñoom rek kon xalaat ne fa lañ war a mën a préparer combat bi. ba ci ndooy. ba ci ndooy. mooy Cheikh Ndooy. foo xalaat ne war nañ fa préparer combat xalaat ne Eumeu Sène kat combat bi da nga koo bëgg nga préparer ko fii. même bu dee Gambie. wala wala Kaolack wala Kaolack wala Guinée <laughs> Conakry wala Guinée Conakry non pare nañ pour dem foofu. parce que nag bul fàtte si biir waxam wax na ko ne damaa dénkaane sama te boo dénkaane du ma may bopp roccu làmmiñ merci doo joxe bopp roccu mhm. mhm. dem États-Unis ba xam dañuy dem France fu si demee dem waaw ndax nag euh, yenn yi du xam ngaañ ma sa cub la dama koy faral di wax lañaan mhm. yow mu mel ni que ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ku ne xam na ni daan na Balla Gaye daanaat ko waaw tubaab ni yaa a jamais deux waaw mais Eumeu Sène ni ma ko gisee ak yow ni ma la gisee dafa mel ni seen objectif. Mhm. mooy daanaat Balla Gaye une troisième fois. mais Balla Gaye nee na bii yoon combat bi <laughs> du combat Eumeu Sène euh. du combat la ñaan mais moom combat boppam la. lan nga wax Balla Gaye. waaw di ko nuyu. comme ni ma ko koy waxee rek. moom Serigne Touba moo ñu boole. Mhm. wax naa ko waxati ko waxati ko. du sama mbër Eumeu Sène suma mbër. Mhm. moom Serigne Touba moo boole ak moom. li tax ma sopp ko mooy sopp gi mu bokk sopp gi mu sopp Serigne Touba. Serigne Touba. te man ku sopp Serigne Touba mën ngay dimbali. ndeysaan ñëpp xam na ni njaarim laa dëkk. te njaareem. kër gu mag mooy kër gu mag mooy kër sëñ Touba <laughs> mu jeex fi ma dëkk fi ñu dëkk si njaareem sëñ Touba moo ko rëdd. njaareem laa dëkk rek mu jeex dama laa leeral ni fi ma dëkk si njaareem sëñ Touba moo ko rëdd may ko sama maam. Oh. yow matériel sëñ Touba nga. bagage sëñ Touba la. Mm-hmm. moo tax ku bëgg sëñ Touba moo bëgg la. moom solo. merci. Mm-hmm. combat bi nag nee na moo ko jëlee boppam. dëgg la moo ko jëlee boppam yeneen combat yi moo ko doon jëlee boppam. Mm-hmm. mais combat bii. loo bëgg a wax foofu. jëluñu ko pour daanu de. <laughs> bala dem na combat de loo bëgg a wax foofu. Balla Gaye <laughs> Balla Gaye am na combat. wuy ma sa waay waaw far de. non faruma. Euh. wax rek <laughs> noonu lay demee. Euh. Balla Gaye am na combat